maa ngi lay nuyu Omar Bun Xataab Gueye di la ziar. di la ziar baax ajaratu am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam. di mhm. sant yàlla bu baax bi ñu may wér gu ñu mën a toogee fii. Mhm. ak euh, fekke waaye tamit di nuyu El Hadj Gaston Mbengue ah. mhm. waaw ñu ngi koy ziar baax a baax ah Donking ak yu euh, njoogu Ndiogu Mbengue saa di nuyu bu baax euh, Pape Djibril Fall. mais aussi tamit di nuyu régie ak caméraman yi mais aussi waa Louga njabootu Abba Sall ñu leen di jàll ñu leen di mas euh, xalif bi fiy mm-hmm. jógee di Serigne Mansour Sall mm-hmm. mais aussi temps yëpp sama xel da ciy génn njaay pa yi ñëpp ko ci wax sa xalaat ñëpp miin ko euh, moom jógee na fi ah, ah. na mat euh, presque une semaine ay dix jours ak yooyu ah, moom tam mu doonoon koo xam ne tamit dem na ci dem bu bette mm-hmm. ñu koy ñaan rek suñu borom jéggal ko xaaree ko àjjana mais aussi tamit di masawu ñëpp kon ajarat ci kanam rek ñu soobu ci waxtaan bi ak le King de d' accord incha allah muy El Hadj Gaston Mbengue El Hadj Sa Ndiogou Mbengue maa ngi lay nuyu. ziar Mbengue maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw euh, bétti ñi ngi lay fay di wax ni euh, <laughs> non parce que alaaj benn alaaji moo fi am muy man. man du ma ajaratu Gaston demul màkk ba nga naan alaaji Gaston. léegi man du ajaratu. Ah. ay waay Sa Ndiogou émission bi commencé gul Gaston émission bi démarré gul. na mu na mu ma ma ma nuyoo ba pare. na mu Sidi ni ni mu xarit woon ak yow. <laughs> Sidi bëggoon na dafa ma ko wax ma dégg. waaw. te corona baa ngi nii. Gaston nuyoo ko xaar ma nuyoo ba pare. mbengaa bi yow la man ah. mbeng la day du mbeng mbeng yow mbengaa la voilà di ñi ngi dem ñi ngi dem ba Touba nuyu xalifa général des Mourides mm-hmm. di nuyu bu baax tamit sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu bu baax sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim Axla di nuyu bu baax mm-hmm. eh, sëriñ Xaadim Fall nekk ca kër sëriñ Sidi ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu bu baax eh, Cheikh Baara Ndiaye borom def gis mm-hmm. waaye di nuyu ki nga xamante di nuyu suñ benn say borom taw feex mais yow Gaston non c'est Gaston nag mais Gaston béti plateau bi non non mais waruñu démarrer Gaston di moom joxaguñ ko parole muy commencé di waxu jaxase plateau ah kay yaa wax kay fi mu nii parce que man maay nuyoo fi mu toll mais bàyyi ma kañ Gaston ma nuyoo eh, mbengaa bi yow la yow di démarrer nga naan mbengaa di nuyu bu baax nag Gaston mbengaa vraiment di am mbégte ci teewam ci plateau bi mais aussi tamit di nuyu Omar ak Pape Djibril di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sunu maman Dieynaba Fall nekk ca mhm, Géejawaay voilà euh, maître Pape Djibril yow it ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw sant yàlla bu baax di nuyu mhm. Sénégal yëpp aussi di leen euh, massawu aussi si xalif généraux yi fi génn àddina mhm. depuis semaine passée aussi di nuyu euh, monsieur Gaston Mbengue aussi. Mhm. si ñu fekk si plateau bi du nuyu sa ak caméraman yi ak waa régie. d'accord El Hadj Gaston Mbengue Gaston Xaali ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay fay maa ngi nuyu waa plateau bi yëpp. Mhm. di nuyu waa dox daje. mooy ñan ñoom ñoom saan yóbbu. ak kan ak Baara. Baara Ndiaye moom fi ñu waa ndox daje. waaw dox nekk fa wax ko nit lu ne rek da soppi sax nit. ku nekkoon ku nekkoon du tudd sax sëriñ parce que sëriñ si dañ leen di tooñ léegi ndax ku jóg ñu tuddee la sëriñ. néew nga ba non attaqué wu ma kenn yow yaa ko bëgg a attaqué. ndax yaa ko jëwoon yaa ko jëw sànq yaa ma wax ci moom loo xam ne sax bëggu na ko wax ci plateau bi. man maa la wax ci dara waaw li nga ma wax ci moom yëpp. ma la wax ci maa ngi man daal maa ngi jàll. Eh, eh, eh, Gaston defal li nga li nga wax ci Cheikh Bara man la la wax ci Cheikh Bara ni mu war a ndaje Mor Ndaje. waaw yaa ko fi man maa ko wax. yaa ko wax yaa ma ko wax. Mor Ndaje yow mii yaa ma ko wax ni ma Mor Ndaje la. sëriñ la woon léegi déglu sëriñ léegi léegi mi ngi ji. ëllëg dina dem ci arts martiaux yi ginnaaw suba mu dem feneen yaa ma ko wax de. man waaw. saa kañ nga may may. Ah, mais il faut arrêter que soxna Gaba. mais mais parce ne man maa leen jeex baara Mor Ndaje. ma yaa yaa ma yónnee sax TikTok bi. TikTok ban Gaston Gaston day saboté quoi. Gaston day saboté. donc maa ngi jaale ñëpp vraiment ñu fi jógee di jaale sama benn mag bu génn àddina bii. muy sëñ Mansour Sall ñoo bokk benn baay. ndax sëñ Abbas Sall ak El Hadj Xaalim Mbengue ca ko ñëpp xam nañ leen. ñu bokk benn baay mu jógee fii di jaale xalif généraux yi fi jóge ak ñi nga xam ni jóge nañ fi ci fan yi bari nañu mm-hmm. léegi koo koo dajal rek mën nga ne ko ci ah. gën a ndigaale soo ko xamul ndax léegi bari na. dëgg la moo tax ñu war a ñaan yàlla mu jóge fi. ca mm-hmm. ñuy respecter mesures barrières yi surtout. parce que affaire bi dafa am daf fi nekk vaccination yi nit ñi dem defi ko. Mm-hmm. parce que vaccin bi dana dana aar nit ci lu bëri. moom vacciné wul Sadio. déedéet nee na li moom vacciné wu ñu ngi corona. waaw danañ corona mais da koy da koy allégé. nu ko allégé da koy allégé da koy wàññi. yow mi nga xam ne nee nga limon mooy sa mooy sa. Ah, après mooy sa vaccin. non dama ne Astra sunu AstraZeneca limon. la ñuy vaccin la du limon. yow nag hmm. comme loolu nga gëm. Eh, sunu xarit ba yal na ko yàlla yërëm yàlla yërëm nit ku baax la woon def fi lu ne mhm. ah, bëggoon saa njóogu man defe naa ne saa njóogu sax dootu fi toogaat ñetteer ah man kañ saa mi man defe naa ne su su kii di dem muy dem ah. mais xam nga kóolóore soo ko ñàkkee léegi mu mën ñetti at. ñett léegi mu mën ñetti at. ah yow yow mais def Gaston bàyyi ma. non mais man man tey su ma wóoroon ni su ma demee. tey non tànk. mais su ma wóoroon su ma demee tey dem ca wet Sëñ Touba. Gaston man naa dem léegi. waaw yow. voilà léegi dinañ ñëwaat. dem ci waaye Gaston dama la may ma sii di ma ne fii di ko ñaanal la gën a bëgg. <laughs> yaa ngi dégg si li nga xam ne moom la bëgg mooy ma ne fii di ko ñaanal. Mhm. maa ngi fii di ko ñaanal saa yu ñu leen ñaanal ko. ñu ngi koy ñëpp ngi koy ñaan Sénégal gépp ngi koy ñaanal. mais ñu dañoo amee yóbbante ñu ko war a yóbbante war la ko jox nga def yóbbu <laughs> kon naki noonu Omar balaa ñuy dugg ci waxtaan wi niñ ko defee noonu ñu koy eh, massaw nag njaaye Sall ma nga foofu lee ca mu colonel Malick Cissé moom ma nga ca diwaanu États-Unis ñu koy eh, jaale famille sàll bi yëpp foofu lee ca Njaamur di wax ni rek yal na yàlla yokk seen leer yal na yàlla sunu borom gëjal ko fii ndaxte nag sunu kilifa yu baax yi moom bu nu fi jógee ñoom ñëpp moom dootuñu am taxawaaye dootuñu am repère donc yal na ko yàlla gëjal fii ci biir réew mi ay cëri jox leen ñu tampon